salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di ñaanal sëriñ Muntaxa Mbàkke mu yàgg fi lool tànd wér di ñaanal kilifa diine yëpp suñu borom yàggal leen fi te wéral leen ñu ñëw rek tey nag di leen yëgal ni sëriñ xaadimloo gaydel ibnu sëriñ Moustapha Lo sëriñ Modulo Isa dafa nekk nga fii ci Amérique agsi na fi bu yàggul waxtu wi tembe nag mi ngi ci état bi nga xamante ne mooy New York waaye incha allahu rabbi dina jàll ba Philadelphie ak Washington DC ak Chicago. Serigne Khadim gay Gaydel liggéeykatu Serigne Touba bu mag bi Serigne Khadim gay Gaydel mi nga xamante ni Serigne Mountakha dong lay déglu moom moo ñëw fii nag ngan ci Amérique waxtu wi tembe mi ngi New York fi nga xamante ni mooy hôtel Hilton nekk ci downtown bi adresse bi mooy 55 Church Street Millennium Hilton. képp koo xamante ni bëgg ngaa siyaare da ngay jokkoo ak sëñ Mortala Fall numéro téléphone am mooy 646 266 46 53 su ko defee képp koo xamante ni bëgg ngaa siyaare sëriñ bi fii ci New York sëriñ bi mi ngi fii ba August ayet su ko defee ñu jokkoo ki nga xamante ni mooy sëñ Mortala Fall. sëriñ bi nag dina jàll foofee di Philadelphie Philadelphie nag sëriñ bi war faa gane. ay mbokki taalibe américain yoo xamante ni dañ ko jébal seen lépp fas yéene ànd ak moom ci liggéey Serigne Touba bi képp koo xamante ni bëgg nga siyaare Serigne bi Philadelphie na nga jokkoo ak mbokki taalibe yii di Shiloh ak Cheikh Salih numéro bi nga xamante ni mooy numéro contact bi mooy 914 3 54 0213. Serigne bi nag su àggalee Philadelphie ñu ngi war a jàll Washington DC doog a dem Chicago. dëkk boobee di Chicago nag sëriñ bi fas yéene faa teewe incha allahu rabbi bis bi nga xamante ni moom la ñu jagleel sëriñ Touba muy Cheikh Ahmadou Bamba Day sëriñ bi nag dina nekk Chicago August 10 August 15 numéro bi nga xamante ni muy numéro contact bi pour képp ku bëgg a ziar sëriñ bi mooy sëriñ Bay Jaxate numéro mi ngi doon 773 40 80 10 Eh, sëriñ bi bu àggalee Chicago dina dellusiwaat New York August 13 kon it foofu képp koo xamante ni diggante boobu ci New York bëgg ngaa ziyaare mën ngaa jokkaak numéro bi nga xamante ni moom la ñu joxe muy sëñ Mortala Fall kon mbokki taalibe yi mbokki jullit di jërë ngeen jëf ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu